il y a plus de match affaire bi jeex na jeexal ko match amatul match amatul terminé Dabani. Ousmane Sonko nangoul ku mës a wax Pastef nanguwul ku mës a wax coalition le peuple du Sénégal lay waxal lu mu wax ne lu ñu def te boolewuñ ci peuple bi du am Ousmane peuple bi moo lay njukkal peuple bi nga gëm peuple bee tax nga sacrifié wu bee tax nga daj li ngay daj peuple bi moo lay fay peuple bee la gëm moo la gëm peuple Sénégal kenn dootu leen nax peuple Sénégal kenn dootu ko nax peuple bee dem ba xam ne yow yaa leen ko jaral nous jox la président une majorité nga soxla majorité. la jox majorité majorité. allié amu fi lañu yi nga ñoo ci majorité. président yokku li nekk ci liste d'attente bi nañu a pas bëgg majorité. ak yow a bëgg la soutenir la gëm ndax Sénégal lañu gëm Sénégal lañu te yaa gëm Sénégal waa anda dinañu ànd ak yow nga jox nu nag liste am nañ ci fierté kan moo nekk ci sa liste Mbène Faye jigéen ñaa ngi gis seen bopp ci moom Ami Dia jigéen ñaa ngi gis seen bopp ci moom doyen Alla ngi gis seen ci moom waaw ana borom Ndakaaru ana sama doom borom Ndakaaru kii dafa am borom Abbas mooy borom Ndakaaru man nag cent cinquante député laa diggee waaye maa ngi revoir en hausse samay prétention ndax dama wër réew mi te réew mi fu dem dama naan leen duma politique ndax président Diomaye ak premier ministre dañ mari der amul politique waye bu nyolaj ñëwee ñu laaj ma Ousmane Sonko ñu ni ma ana Ousmane bu ma demee sud ñu ni ma ana Ousmane bu ma ñëwee Ossan ñu ni ma ana Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane merci beaucoup merci beaucoup Tata Aïda Mbodj léegi qui dañuy le représentant de la JPS fi ñu qui nii Nous, ci salle bi muy secrétaire général adjoint du JPS nous saluons John. Salut. mom la ñuy jël jox kàddu gi alaykum la jeunesse alaykum la jeunesse dama len bëgg a dégg tey dafa am ben pacte bu ma bëgg ñu féddale ko